suivi du PUDC, Programme d'urgence de développement communautaire, ensuite euh, du PUMA, Programme d'urgence de développement des axes et territoires frontaliers. Après cela, les gens commençaient à dire que le président ne s'occupe que du monde rural. Alors j'ai dit la réponse serait le programme de modernisation des villes, Promoville. Alors, la plus ancienne d'ailleurs, c'est l'agence, la, la, la, délégation générale à la solidarité nationale, qui est la responsable du programme national des bourses de sécurité familiale. En réalité, c'est la doyenne. C'est la première qui a été créée. tous ces instruments, je vais y revenir, sont les outils qui ont été mis en œuvre pour apporter les réponses appropriées aux demandes des populations. Et je voudrais saluer ces populations venues des profondeurs de notre pays. Pendant mes tournées précédant mon accession à la souveraineté internationale. Comme vous le savez, j'ai parcouru le Sénégal en profondeur. Et j'avais constaté l'état de vétusté, de dénuement extrême du milieu rural, qui manquait de tout, qui manquait d'eau potable, qui manquait d'électricité, qui manquait de pistes de désenclavement. Mais surtout, ce qui m'avait frappé, c'était la pénibilité des femmes en milieu rural. Il fallait donner des réponses concrètes à cette situation. Déjà, avant le Yonou Yokouté, j'avais théorisé la nouvelle, le NOP, nouvelle, un nouvel ordre de priorité. Le nouvel ordre de priorité, ceux qui étaient avec moi avant savait que déjà nous avions changé notre perspective du développement. Il fallait un nouvel ordre des priorités qui très tôt a été mis en œuvre grâce également à la collaboration du PNUD, le système des Nations Unies, programme des Nations Unies pour le développement. Et je voudrais saluer l'ancienne représentante qui a travaillé avec nous, Madame Djibo, dès le début, puisque j'avais confié au PNUD J'avais également confié au PAM un certain nombre de programmes pour aller vite et pour également travailler dans la transparence. Voilà l'histoire de ces outils qui nous ont permis aujourd'hui de faire cette journée mémorable de l'équité. De Madame la ministre, je voudrais d'abord vous féliciter. Vous féliciter pour votre engagement et votre capacité à vous adapter très rapidement. Et la valeur d'un cadre, ce n'est pas d'être un expert dans un domaine. Ça, ce qu'on appelle une tête bien pleine. Mais nous avons besoin de têtes bien faites, capables d'adaptation, de s'adapter aux situations, de comprendre les politiques publiques pour les mettre en œuvre. Si vous ne les comprenez pas, eh bien la mise en œuvre n'en sera que plus malheureuse. Ce n'est pas votre cas. En convoquant cette journée nationale dédiée à l'équité, la première du genre, j'ai tenu à réitérer mon attachement personnel au développement du Sénégal dans l'équité territoriale et la justice sociale. Ce que j'ai appelé le Sénégal de tous le Sénégal kooku yéen a ko yeggale Sénégal de tous et le Sénégal voilà pour tous où chacun chacun peut avoir une vie décente en accédant aux services sociaux de base vraiment le témoignage du président de l'AMS maire de Ndiop dans mon département de Fatick Je disais hier à la délégation marocaine que je salue au passage les maires et les maires de Côte d'Ivoire que l'impact de la politique de décentralisation à travers l'acte 3, c'était de redonner la dignité à l'ensemble des collectivités. Nous avions des communes, des villes, des communes, des communes d'arrondissement et des communautés rurales qui n'avaient ni le statut ni la considération. L'acte 3 a donné la communalisation intégrale. Les communautés rurales sont devenues des communes. C'est pourquoi un ancien PCR est devenu maire et président de l'Association nationale des maires du Sénégal ce qui lui permet naturellement d'avoir accès également à toutes les infrastructures de base pour le développement économique et social de ces populations. Aujourd'hui, Nous revenons d'ailleurs aux sources, parce que c'est ici, à Djamnyadjo, que j'avais lancé le 7 juillet 2015 le programme d'urgence de développement communautaire, le PUDC. Un des instruments phares de notre politique d'équité territoriale et d'inclusion sociale. Je disais à l'occasion qu'il nous fallait dans l'urgence apporter des réponses aux difficultés persistantes auxquelles plusieurs parties de notre pays restent encore confrontées. Puisque lorsqu'on parle du PSE, c'est un programme sur 20 ans. ku xiif mënoo ko ne xaaral vingt ans ñu doog la yekkal il faut nga wutal ko lu jooni jooni tàng léegi te neex itam loolu mooy la philosophie des programmes d'urgence programme d'urgence euh, de développement communautaire programme d'urgence euh, du de PUMA Promoville est un programme d'urgence aussi pendant que maintenant le PIC, le, le PIC va prendre la transformation structurelle à travers les autoroutes, à travers les ponts, les échangeurs que vous voyez à travers de façon globale cette transformation économique des structures de l'économie, ainsi que ces deux autres axes, à savoir le développement durable, le capital humain, développement durable et protection sociale. Tout cela va en même temps, ainsi que la gouvernance, la paix et la sécurité. Mais dans l'urgence, il fallait apporter ces réponses. Donc c'est pourquoi nous avons déroulé une stratégie intégrée solidaire et inclusive par la réduction des disparités, disparités entre les villes et les campagnes, mais aussi disparités entre l'ouest du Sénégal et le reste du Sénégal. Et surtout, l'amélioration des conditions de vie des populations rurales. Le PSE vient d'être lancé, il venait d'être lancé en 2014, donc un an ce lancement du PUDC, avec comme perspective l'objectif d'émergence en 2035. Et nous allons l'atteindre avant 2035, s'il plaît à Dieu. Mais je m'étais dit que pour nombre de nos concitoyens, il y avait des besoins urgents qui ne pouvaient pas attendre cette échéance et qu'il y avait urgence à y apporter des réponses de réponse à ces besoins. C'est l'objet de nos politiques d'équité territoriale et d'inclusion sociale. Je salue également le coordonnateur ou le directeur général du Fonds de solidarité nationale qui fait partie de ces instruments. Au demeurant, l'équité et l'inclusion sont plus qu'une question de justice sociale. Elles sont également une source de confiance des populations dans les politiques publiques qui sont déclinées sur le terrain au-delà des pétitions de principe que nous entendons ça et là. En somme, il ne s'agit pas seulement de déclarer l'équité, mais de la pratiquer en lui donnant un contenu concret. lu ñuy wax ci wolof lamb daj c'est daj un contenu concret qui sort des chantiers battus ainsi pour ne citer que quelques initiatives phares je les ai déjà citées dès l'introduction le PUDC dont le modèle innovant et inspirant a pu être adopté ou adapté dans d'autres territoires dans d'autres pays et il nous a permis la construction de près de 900 km de pistes de désenclavement et 500 autres pistes sont en chantier au moment où nous parlons. L'électrification de près de 1000 villages déjà livrés avec 600 qui sont en chantier. Et je vous rappelle qu'on avait à peine 1300 villages depuis l'indépendance jusqu'en 2012 électrifiés au Sénégal. Le seul PUDC a fait mieux. Alors, je ne parle pas de, la, de des autres programmes du ministère de l'énergie, mais également de tous les pro- programmes qui sont dans la transversalité. Le PUDC e a permis de réaliser 328 forages dans sa phase initiale, dont plusieurs sont des forages multi-villages, avec leur équipement château d'eau et réseau de connexion, d'adduction. Mais surtout, ce qui m'a le plus plus et notre sœur de Diofior l'a dit, Khadi, ce sont les machines, les, les machines, les décortiqueuses, les batteuses, les moissonneuses, qui vraiment ont beaucoup contribué à alléger le travail euh, domestique des femmes dans ces zones rurales. L'autre programme, le piment, comme Mais vos gars, vos amis là sont les plus bruyants, Moussa. Ils ont tellement tapé du doigt. Le PUMA, qui est le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers. waa ah, léegi noppi leen nag waa PUMA noppi leen Alors, le Puma a déjà réalisé 249 km de piste. le Puma aussi reprend le programme du PUDC, mais dans les zones frontalières, qui sont plus éloignées, les plus désenclavées, les plus enclavées, tant pour moi, que le Puma tente de désenclaver. Il a électrifié presque 100 villages, donc c'est 97 plus précisément, et désenclavé 284 villages. Sans compter les ambulances, tout à l'heure je viens de voir les nouvelles dotations en bateau-ambulance, 3, un pour Seyou, un pour euh, Ziguinchor. Mais Ziguinchor, c'est une localité, c'est pas la ville, c'est Elenkin, il faut dire un pour Elenkin, un pour Seyou et le troisième, c'est les îles du Saloum, c'est Dionewar ou Niodior. Bon, compte tenu des ambulances médicalisées et autres euh, ambulances. Le piment, c'est la construction des structures de santé avec d'autres commodités. Bravo également pour le piment. Alors, le programme des villes. Le programme de modernisation des villes, dirigé par une femme extrêmement compétente, ingénieure, polytechnicienne, le piment m'a retiré une conseillère d'ailleurs qui était dans pour s'occuper justement de la modernisation des villes à travers un programme qui a impacté sur plus de 3 millions d'habitants. 3 millions d'habitants avec 198 km de voirie dans les villes, 3 998, donc 4 000 lampadaires puisque Promoville, c'était d'ouvrir des lignes, des, des, voies, des routes, de l'assainissement et de l'éclairage. Pour changer quoi Pour changer le cadre de vie, surtout dans la banlieue. Vous allez aujourd'hui à Guédiawaye, vous voyez la fierté des populations de Guédiawaye. Non seulement sur le tracé du BRT, mais également sur les programmes de Promoville. Vous allez à Tambacounda, vous n'allez plus reconnaître Tambacounda. Et l'autre jour, j'ai été à Fatigue. Mais Fatigue attend quand même qu'on accélère, madame. Qu'on accélère un peu les routes à Fatigue. Alors, c'est ça également le programme Promoville avec toute la construction qui va avec de, des infrastructures pour les femmes, pour les jeunes, etc. Quant au programme des bourses de sécurité familiale, dirigé également par une autre dame. Vous voyez qu'ici, vraiment, on a fait une politique d'équité et surtout équité de genre. Le ministère est dirigé par une femme. Les grands projets sont dirigés par des dames également, au moins moitié-moitié. La parité est respectée. Donc, Mme Aminata Sow, économiste également, est la déléguée générale pour la protection sociale et la solidarité nationale. Ne vous en faites pas, je connais les noms, je les ai créés. <laughs> Alors, il y a eu pour 355 626 ménages des de sécurité familiale qui avaient au début une allocation de 25 000 par 2023 2024 à 35 000 francs par trimestre. Et depuis 2013, depuis 2013, des transferts de l'ordre de, écoutez bien, 268 milliards de francs CFA ont été effectués au titre des bourses de sécurité. kon foofu dama bëgg xamal nit ñi ne lu ñuy wax transfert xaalis bi jógee ci nguur gi dem ci askan wi lu ëpp ñaar téeméeri milliards ak juróom-benn fukk ak juróom-ñett jëlee nañ ko ci keesu état bi jox ko askan bi loolu mooy programme des bourses s'agissant maintenant du programme de couverture sanitaire qu'on appelait couverture maladie dirigé par le docteur Daffé docteur Daff docteur Daff de Alors, ce programme a permis d'étendre au maximum pour l'accès aux soins. Il nous de passer tout simplement d'un taux de couverture de 20% de personnes qui avaient une couverture maladie à 52, 3 53 virgule 20 pour cent de 2012 à maintenant et pour cela je félicite également les mutualistes et leur dire que j'ai bien entendu la doléance qui a été faite de vous faire participer dans les politiques nationales donc je décide dans le prochain Conseil économique et social de vous coopter un des vôtres pour siéger au Conseil. Nous avons d'autres outils. Nous avons d'autres outils, d'autres qui ne sont pas sous la tutelle du ministère de l'Équité, mais qui travaillent pour l'équité et pour l'autonomisation des femmes et des jeunes. Le premier, c'est la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, la dr DRFJ. Déjà, elle a eu 250 000 bénéficiaires. Le représentant de la BAD l'a dit tout à l'heure, à travers le PAVI et d'autres programmes, avec euh, aussi la dr qui donne des, des gammes de prêts très variées y compris ce qu'on appelle les nano-crédits, qui sont de très petits crédits quotidiens. À ces différents instruments, je peux citer également ceux destinés à la formation professionnelle. Le Fonds de financement de la formation professionnelle trois fpt qui est un instrument pour la formation des bénéficiaires. Nous avons également l'ANPEJ, l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes, nous avons plusieurs autres outils sur lesquels je pourrais venir, mais le plus emblématique reste le Réunion programme pour l'emploi des jeunes. Nous avons surtout le Fonds de solidarité nationale. Salut le docteur Ba qui le dirige. Il a été modernisé et renforcé dans ses interventions. Et enfin, le commissariat à la sécurité alimentaire et à la résilience, M. Diaw, qui également vient d'être nommé à la tête de, ce, de cette délégation au commissariat, qui doit agir de façon globale sur l'ensemble du territoire national. S'agissant maintenant du cadre légal, le gouvernement initiera très prochainement un projet de loi d'orientation de la protection sociale sous l'égide de ministère de, du développement communautaire, de la solidarité nationale et de l'équité territoriale, et, sociale et territoriale. Donc, euh, Mme Thérèse Faye Diouf va conduire cette réforme en relation naturellement avec les autres ministères et services de l'État. Aussi, dans la même perspective, nous allons mettre en place très prochainement la Caisse autonome de protection sociale. C'est elle qui va financer toutes ces gratuités, les césariennes, les gratuités pour la dialyse, les gratuités pour les enfants de 0 à 5 ans, pour les anciens avec le plan Sésame. Il faut bien qu'on les finance et de façon durable. Le budget seul ne suffira pas, il faut donc des mécanismes qui vont alimenter cette caisse autonome de protection sociale qui va être installée avant, en tout cas, la mi-février, je l'espère. Mesdames et messieurs, la mise en œuvre de nos politiques d'équité a beaucoup contribué à améliorer les conditions de vie des populations en renforçant les capacités de résilience, des familles et des communautés. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs si l'espérance de vie a beaucoup augmenté au Sénégal pendant cette dernière décennie. Mais il nous reste beaucoup à faire. Il ne faut pas croire que tout est fait. Ce n'est pas vrai. Il reste beaucoup de chemin encore à faire, d'où l'instauration d'ailleurs de cette journée de l'équité pour offrir un cadre d'échange que l'on pourrait d'ailleurs appeler les assises nationales de l'équité. Madame le ministre, on pourrait l'inscrire donc comme programme annuel dans l'agenda républicain. Et cette première édition, qui se déroule sous le thème de l'équité sociale et territoriale au cœur du plan Sénégal émergent, doit nous inciter à une réflexion approfondie sur nos politiques en la matière pour mener, pour mesurer nos succès, mais également mesurer nos limites et identifier les leçons pour aller de l'avant. Il ne s'agit pas ici d'un exercice d'autosatisfaction. Qui me connaissent savent très bien que je fais très peu cas de l'autosatisfaction. L'essentiel, on a fait des choses très importantes, mais il faut voir comment mieux les faire et comment aller encore plus vite et plus loin. Donc cette journée devra permettre de faire un diagnostic sans complaisance, comme on dit, euh, qui questionne l'existant et surtout propose les améliorations nécessaires aux performances qui sont attendues. Il y a lieu à ce sujet d'accorder une attention particulière à la cohésion de l'ensemble de nos instruments d'équité territoriale et d'inclusion sociale. Il faut éviter les chevauchements, il faut éviter le double emploi. Il faut également que le déséquilibre territorial soit réduit au strict minimum dans la mise en œuvre des différents programmes. c'est la raison pour laquelle la question du RNU, le registre national unique, doit être abondée très rapidement pour qu'il y ait un seul fichier national afin que tous les acteurs, tous les partenaires puissent travailler sur le même modèle. J'y engage particulièrement Madame la ministre du Développement communautaire, euh, que je félicite, je l'ai déjà fait, ainsi que l'ensemble de ses équipes. Je voudrais également saluer et remercier vivement ici nos partenaires. Je distinguerai le groupe de la Banque mondiale. Le vice-président était là, mais il a eu des urgences en Mauritanie ce matin. Ainsi que le groupe de la Banque africaine de développement et naturellement le système des Nations unies qui nous accompagne, qui nous dans tout ce que nous faisons par rapport à cette politique d'équité sociale et territoriale. Je déclare à présent ouverte la première édition de la Journée nationale de l'équité euh, et souhaite surtout plein succès à vos travaux.